asalaamaaleykum mbokk téléspectateur télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye itam di leen baal àq di leen dalal jàmb nag ci seen émission bi di wareef ñu jéggalu nag bu mat sëkk sëkk sëkk ndax retard bi ñu am loo xam ne du suñ coobare waaye sant yàlla bu baax a baax julliwaat ci sangu-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nañu koy defee saa su nekk xam nga ne mbégte gu rëy laay am ci wareef ci télévision Futurs Médias di feggoog sama nijaay sama kilifa sama xarit Alaaji Njaay Loo Njaay maa ngi lay nuyu bu wér di la ziyaar di la sargal di la ñaanal nga yàgg fi lool lool lool lool te wér bisimilah Alaaji. jërëjëf yal na ma ko yàlla boole ñun ñëpp. amiin amiin Alaaji. defal la jàmm defal la cat defal ko sa waajur. ndeysaan amiin Alaaji. bu liggéeyam bépp yàgg tamit teewee lépp. jërëjëf jërëjëf Alaaji. di siyaare bu baax xalifa sanal kullu murit yàlla fa dem gudd ak rakkam yëpp. amiin amiin alaaji. ñaan borom kër gi nag yàlla defal ko jàmm yokk jàmmam. amiin amiin alaaji. li mu jéem a lim lépp yàlla na ko yeggale ci sagoom. ndeysaan. mboolem ñu koy jàppale ñoom ñëpp. ndeysaan. di saar bu baax nag docteur. bu mm. ko yàlla suturaale damay ñaan suñu yàlla bu mu def toor. ndeysaan ndeysaan. ndax moo tax mu jàng ba licence. ndeysaan. moo taxit ñu naa ko docteur. ndeysaan. kon jikko la. ju rafet ak yërmande ci duggee yàlla mën ko suturaal man koy daal ci jàmm amiin alaaji su ma déggee nag di siyaare bu baax nag mm. alaaji Moustapha Cissé bu Pire dama woon ndeysa meen digga mu sama dooma ndeysaan loolu am na <laughs> waaye bisam bi alhamdulilah yàlla na ko yàlla yóbbu jàmm lam fa ñaan ca alxuraan lépp yàlla jëriñ réew mi amiin amiin yaa rabbal ndax yoon baat mën naa yor àddina waxuma Sénégal kon lim si ñaan lépp yàlla na ko yàlla defal amiin yaa rabbal incha allah borom nag euh, kilifa diine yaa di yëpp yokk fan yi tàppe xol yi jàmm am ci réew mi su ko ñun ñëpp ñu am jàmm euh, Cheikh Kountaat ndeysaan yëpp na ma ci yow xam nga man kilifa diine dama leen taq macha allah ku ma ci nuyu rek ni ma ana seex wallaay baab muy baab muy euh, Serigne Baba Lamine Baba Lamine Niass moom maa ko bëgg moom kon jeex na boog euh, bu baax di ko ñaanal jàmm yàlla defal ko jam ci dara jooy bàyyi yàlla defal ñu lépp ak ñaan jërëjëf xeet kon ñun ñaan lépp yàlla nañu dal euh, te ñu yegg la suñu sago kenn bañ puus amin alaaji mbégte gu rëy laay am saa su nekk di toog ak yow di la ñaanal téeméeri ati teg téeméer ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye nag mbégte gu ni mel la ñu am toog ak docteur Ndella Diakhaté euh, di chargé de programme Fonds mondial à Intra Ils Sénégal docteur kontaan naa trop trop trop ci toog ak yow di la sargal à travers yow di nuyu waa Intra Ils yëpp nuyul askan wi. jërëjëf soxna euh, Degene. Euh, ginnaaw bu ma leen nuyoo. Euh, yow ak sama papa papa Ndiaye Lour damay nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa seqal liggéey bi. à sama collègue yi nga xamante ne ñoom laa bokkal liggéey bi foofu. Mm-hmm. ak encore bu ma génnee biir Intra damay nuyu. képp kuy liggéey ci ministère de la santé ci banqaas boobu ñu tuddee programme national de lutte contre le paludisme mm-hmm. parce que ñoom li jàppale mm-hmm. bu mu ko mënee bu ma mënee tënk wax ci noonu mm-hmm. ci li ñuy wax xeex si buru donc euh, tey euh, loolu moo ma fi andi mais nii aussi téléspectateur u TFM yëpp ah fas yéene euh, toog ak yéen tuuti rek macha allah wax ak yéen un peu ni ñuy aaree si buru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 alaaji saa yu ñu toogee dina yëkkati tamit baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun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 Ousmane Diop mi nga xam ne moo doon ancien trésorier général du Sénégal moom tamit euh, euh, di maam ci Henriette ma dem Guèye génn àddina ñun ñëpp nag alaaji doon doon doon ñaanal waaye tamit seen i njaboot am cofeel lool lool lool ci télévision Futurs Médias kon rafet na suñu fi jugee ñu jaale ko askan wi ndax àddina bi ku nekk rek di nga jëli sa nag alaaji defe naa noonu nga koy waxee. waaw waaw xam nga sama diggante euh, koo xamul sax boo diggee ni nelaw la. jaale ko ndax ku tàgge ku ne des na la ma sa tàgge des na sa tàgge allaaji foo dem jaal yi des na la ma sa sol seeni daal jaale wallaay wallaay wallaay ndeysaan bor la bu ñuy fay te du jaas dëgg la sërub dënk la walis allah des naa allah kulli xaal allah kulli xaal allah wallaay wallaay wallaay goroom jàmm ndeysaan génn àddina te muy uf doomam ndeysaan ndeysaan ko bokk diine yëpp dëgg la mhm. def rek mooy su fekkente ne am na revue de presse ñu dem seetaan wala revue de presse bi lancé na bi pas dama koy lab sax denc ko ba ci li nga xam ne mooy pause bi ñu teg revue de presse allah ji na xam nga ni tey accusé nañu benn retard dañu am gan yu mët gan waa Intra Health euh, docteur euh, la Diakhaté maa ngi lay euh, sargal ñuy ñëw nag di wax ci li nga xam ne dafa itteel askan wi mooy mbirum sibiru yéen ngeen taxaw pour Sénégal yëpp am sànke Sénégal yëpp am moustiquaire hmm. loolu programme bi loolu la indi ndax wér-gu-yaramu askan wi daf leen itteel hmm. ma bëgg la laaj balaa ñuy sori lan mooy sànke moustiquaire imprégné dañ koy dégg hmm. lan la lan la ak lan lay jëriñ hmm. jërëjëf euh, soxna Chimère euh, déggan Chimère euh, moustiquaire imprégné bi ñu ooyee sànke ci olof mooy jumtuwaay boo xamante ne ni dañ koy jëfandikoo pour que yoo bañ la maat parce que ñëpp xam nañ ne yoo moom mooy joxe si buru waaw su la yoo màttee foofu ngay mën a jaaree am si buru léegi nag euh, dañu ànd musikeer yi mhm. mooy sànke yi mhm. pour teg ko mhm. diggante nit ki ak yoo bi parce que soo tëddee ci lal musikeer bi nga wàcce ko nga def ko comme nañ la ko waxee yoo bi a dugg ci biir ba mën laa màtt te dina aar njaboot gi yëpp euh, léegi nag ñu euh, façon moustiquaire yi ñu am dañ ko nàndal ak benn tooke boo xamante ne non seulement moustiquaire euh, yooyu duñ la màtt mais da leen da leen di dàq da leen di puus loolu am na solo da leen di puus euh, loolu dafa am solo mm-hmm. léegi lan la ñu oowee moustiquaire mhm. imprégné mhm. d'insecticide à longue durée d'action mhm. dinaa ñëw ci loolu ginnaaw ba nga xamante ne ne que di joxe moustiquaire yooyu maanaam sànke yooyu ñu nàndal ko loolu tamit baax na askan wi xam moustiquaire ba ñu nàndal naka nga koy aare ba lañ ca nàndal du dañ waaw loolu tamit lu am solo la dëgg la defe naa ne allah ji fu mu nekk ni balaa may joxaat docteur ndox mi bëri na gis nañ ne inondation yi am na ay kër yoo xam ne ba léegi nit ñi ñu ngi ci biir ndox mi kon su fekkente nga xamante ne moo defe naa loolu programme xam nga mu suukar bu ko nàndalee doo ko takk doo ko daal di takkal fa saasa. koy weer. Mm-hmm. ba mu wóor la ni fi mu toll yow ci bopp du la wàññi dara. Mm-hmm. ndax loxo yi bu la ko yoo jubee képp mën naa loru. Mm-hmm. nit ki koy sàngoo. war naa mën a am jàmm. bala koy aar mu xam ko daw. mu euh, suukar daanaka euh, ndakaaroo ko xaw a sàggane. waaye boo génnee mm. waaw am na sax ñu waaye boo génnee mm. euh, néeg boo dugg mu néeg bi riis riis musculaire nga sax dëgg la dëgg la ndax euh, loo xam ne lii ñaare bu la dalee musculaire mm-hmm. euh, dootu la gaaw faj mm-hmm. te musculaire défense la mm-hmm. boo ko teelee jóg. la lay xibiruloo. bu jugul sans borom. yàlla man na si dimbali ba dara daal. dëgg la comme ñun daan nañ def ñun ay campagne daan nañ mis di la femme. ñun def nañu euh, euh, daanaka réseau yëpp. ci mbirum sibiru. mbirum sikière dafa daan séddale nañ communicateurs yi. macha allah Asmin Sow Mbaye sunu président. allah am na ñun ñëpp parce que. kon euh, nit ñi nañu xam ni. Mhm. fu ndox bari rek. Mhm. dëkk bi wala. dëgg la. te dëkk boo kër goo dem fi mu yoo a a nga fa yoo soriwul kon nañ di seet lu cher koy defaree. Mhm. nañ seet it li leen di. Euh, aar mhm. ngir ëllëg ndax muskietu mhm. dara dëgg la aar sa bopp la rek nañ dem seetaan bi am na élément boo xamante ne am nañ ko docteur ñu dem seetaan ko su ko defee ñu ñëw waxtaan baax a baax a baax kontaan nañu loolu ci sa toogaay <laughs> man nag docteur bu jongama rek laa bëgg nag macha allah couverture universelle euh, en moustiquaire imprégnée à longue durée d'action dafa nekk programme boo xamante ne euh, programme national de lutte contre le ak partenaire am ku mel ni Intra Health ñoo jàppale réew Sénégal pour que euh, districts sanitaires yi population yi fa nekk mën a am ay moustiquaires imprégnés waaw xam ngeen Kër Massar dafa nekk gox boo xamante ne. effectivement dafa am inondation boo xamee inondation mooy ndox boo xamante ne dafa taw ba bëri ba pare nag mu taa foofu bu ndox bi taawee dafay nekk euh, bërëb boo xamante ne ay yoo dañ ci dañ ci juddu dañ ci màgg mu yokk donc li nga xamante ne mooy euh, feebar bi léegi nag moustiquaires yooyu ñu indi non seulement dina dina dina aar Euh, xale yi mais aussi mag ñi ak jigéen ñi ak góor ñi ak ñëpp maanaam famille bi yëpp dina leen aar ci paludisme ginnaaw bi ñu joxee euh, lu toll ak deux cent soixante huit mille six cent soixante quatorze moustiquaires un peu moins de trois cent moustiquaires bi ñu ko joxee ba pare gis nañ ne taux de couverture maanaam euh, tërwaay yi nga xamante ne ñu am moustiquaire dafa jógee six cent dem ba cent trois pour cent ça veut fii ci gox bi. daanaka population yëpp en tout cas kër yëpp mën nañu wax ne am nañu ay moustiquaires donc ce qui fait que aussi euh, bu njëkk avant projet bi di am aussi boo xoolee euh, benn benn moustiquaire la ñuy par ménage loolu loolu lañ xayma bi ñu defee xayma bi léegi bi projet bi àndee ak léegi daanaka ménage bu ne am na cinq moustiquaires te loolu dafa nekk programme bu am solo. day euh, d'ailleurs bu ñu joxee moustiquaires yi ba pare aussi def ni ay visite li ñuy wax visite à domicile xool ndax nit ñi ndax ñu ngi jëfandikoo moustiquaires yi ndax takk nañ ko bu ñu defee loolu ba tey jii gis nañ ne pratiquement en tout cas ren ñu fi doon ñëw ci hôpital bi xam nañ ne du ñu pare du jeex ni waaye wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax parce que heure bii période bi boo fi doon ñëw saal yi dafay fees. saa du saa day fay fees dell. ba ci couloir yi couloir yi ngay gis yooyu noonu yëpp dañuy entrer malade saali salle day fees ba du ñu am fu ñu def malade yi dañu obligé euh, entrer leen ci couloir loolu askan bi yëpp ak gox bi yëpp seet nañ ko waaye lañ li ñu gis mooy que saali am na li ñuy wax am na lal yoo am kenn tëddu si loolu nekk na avancé bu am solo bu am solo mën nañu wax ne daaw ci hivernage bi moo nekkoon feebar bu njëkk fii ci Kër Massar mais tey tey tey jii nii mu ngi nekk ci cinquième position donc ça veut donc wàññeeku na ci askan bi bu baax aussi. ah naa si njëriñ bu bëri parce que balaa ñuy commencé don yi ci district yeeg yooyu sonn nañ trop ak sibiru bi. ndax bu boobaay fa nga génn mu sikkar boo amul moyen pour génn bi da ngay génn benn ngeen bëgg di booloo te loolu dafa métti ke mënu ko mais ci district de santé yeeg case de santé yeeg yooyu bi ñu commencé joxe moustiquaire ba léegi moo wax dëgg yàlla xale bu nekk fooy tëdd am na moustiquaire léegi yëpp am moustiquaire neen fii sax dañu fii fanaan guddi mais dañuy takk moustiquaire waaw mais boobu ba léegi wax dëgg yàlla gëj naa dem sax district naan damaa sibir wala xale yi ma yóbbu wax dëgg yàlla gis nañ si njëriñam bu baax moom amoon nañu aussi poste de santé bu benn poste santé bu Alaaji Paate dafa inondé woon solution bi mu mujj ut mooy déplacer mooy def lu ñuy wax poste avancé maanaam indi fa teg fa bâche poste bi mën a continuer waaw indi fa ay bâche donc déplacer poste de santé bi poste santé bi nekk foofu di continuer di faj euh, population bi. moustiquaire yi moo ñuy aar mu dem ci case de santé yi uti moustiquaire parce que dañ koy maye. kenn ko boo demee dañ lay may moustiquaire nga wax ñaata foyer nga kii ñaata couchage nga am ñu jox la nga dem lalal sa doom mi ñu tëdd am na njëriñ bu baax nag dam koy yedd mu dem uti moustiquaire ñëw fanaan ak ay doomam ndax yooyu moom amul noor amul nawet bu ñu joxee moustiquaire rek léegi moom tëddaay bi sax dafa neex parce que ku mu neex foo la neex tëdd te di nga takk moustiquaire même ëtt bi avant muy tooy dan nañ fa lal ay bassans teg si matelas nga tëdd jërëjëf kon euh, na ñuy remercier waa euh, Kër Massar ci élément bi nga xamante ne jox nañu ko mu nekk lu am solo docteur euh, Diakhaté gis nañu ne nee na noor yooyu amul noor amul nawet. Mm-hmm. kon moustiquaire tamit war nañu noor war nañu nawet. Mm-hmm. ma bëggoon la laaj sànq tamit ki ko am. Mm-hmm. naka la koy entretenir. ba moustiquaire bi continuer di ko di ko di ko di ko aar. waaw. soxna Dégène euh, moustiquaire bi comme sànq sama papa lu mu wax euh, dañuy commencé duñ ko jëkk jëkk euh, jotee duñ la ko joxee le plus souvent suñ koy joxe sax dañ koy dajji ci sachet mu nekk xam nga mais yow soo ko jotee dañ lay wax nga tàllal ko foo xam ne dafa am ker parce que buggul naaj ndax tooke bi nga tàllal ko fu am ker vingt quatre heures mooy si néeg rek mhm. néeg mhm. vingt quatre heures boo ko taalalee midi. Mm-hmm. ba ëllëg sa midi. Mm-hmm. nga soog a teg laal laal li. Mm-hmm. dem takk. ci sa ci sa lal. loolu mooy tax ah tooke bi xaw a wàcc tuuti. ba nit mën see tëdd te du ko du ko lor. parce que léeg-léeg nga dégg. ñoo xam ne dañ la naan dama tëdd. sama yaram di xasan wala di fet fet parce que ñoom dañ koy daaj rek. dem tëdd ci biir waaw loolu nag soo ko jotee ba pare dañ lay wax sooy takk musikeer bi na nga ko borde li ñuy wax borde mooy nga jël lal bi roof ko mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. ba nga xamante ne du am benn bunt boo xamante ne yoo dina ci yoo mën na caa jaar mm-hmm. boo jógee itam di tuur ndox guddi soo ñëwaat tëddaatee lemaatal ci biir xam nga euh, bu loolu weesoo musikeer euh, yi ñu am mhm. yi nga xam ne dañ ko imprégné tooke mhm. Ah? Mhm. mën na durer ñeenti at ñeenti at ñeenti at ñeenti at boo xamante ne kenn fóot loowu la kenn def loowu non fóot bi dinaa si ñëw ah, xam nga léeg-léeg dina poussière te ñun xam nga Sénégal ñun da jigéen ñi dañoo set waaw set lool xam nga bëgg loo xamante ne dafa propre xam nga boo gisee ne sa moustiquaire poussière na xaw na lëndam da ngay jël ndox ndoxu robinet mhm. soxlawul baxal soxlawul dara ndoxu robinet mhm. nga dugal ci biir mhm. jël saabu ordinaire nga raay ah saabu ordinaire soxlawul soxla benn détergent soxlawul détergent ah. soxlawul eau de javel soxlawul dara saabu ordinaire nga raay nii parce que moustiquaire dafa oyof nga raay nii fete bu oyof waaw soxlawul fete bu koy bëtt waaw fete bu oyof parce que boo euh, guppee li ñu wax gupp ah, soo defee nii nii nii nii mm-hmm. rek mm-hmm. nga layandi ak sa ndox mm-hmm. mu leer naññ weer ko nag foo xam ne amul naaj ah weer ko ci ker weer ko ci ker moom sax neex naa woon moom moom boo ko tàllalee soo ko xoolee fenn boo ko tàllalee fenn laa wax trois heures de temps kon daal naaj lay bañ naaj parce que naaj bi day day day tooke bi ah, ah, dafay yàq tooke bi dëgg la dëgg xam nga soo ko defee noonu ci biir euh, ñeenti at yi mën nga ko ci fóot ñaar euh, ñaar fukki yoon alors lu baax na ñaar fukki yoo xam ne ci néeg lay ne teg ci waaw tu ci néeg lay nekk mm, mm, mm. noonu la ñuy entretenir moustiquaire bu fekkente ne dafa am foo xam ne dafa xaw a bënn tuuti mm-hmm. ah da ngay jël sa piso mm-hmm. ak wëñ bu sew mm-hmm. jaarale ko ci jaarale ko ci rek ndànk ba nga xam ne fii nii yoon du fa mën a dugg rek nga continuer loolu am na solo waaw loolu am na solo mais yéen fii ngeen toll ci réew mi bëggoon naa la laaj ban politique la réewu Sénégal tëral ci terme paludisme ak moustiquaire yi ndax dégg naa ne da ngeen di wër di maye waaw xam nga euh, programme national de lutte contre le paludisme mm-hmm. ci daanaka euh, fukki at yi ñu génn su ma ko mm-hmm. mënee tënk noonu mm-hmm. euh, dafa def jéego bu mag jéego bu mag bi mooy ay résultats yi nga xamante ne ni vraiment dal na xel parce que tey deux mille deux mille un deux mille deux mille un à peu soo demoon ci dispensaire yi nii docteur bi sax wax na lu ne xaw mel soo jëlee téeméeri nit ñu ñëw di faju foofu mhm. fanweer yi dañ doon am siburu. dëgg la fu ne nit ñu dafa tëb. nee na ba ci couloir yi. fanweer dañ doon am siburu. Mhm. mais léegi bi nga xamante ne programme palud programme national de lutte contre le paludisme am na matuwaay yu bari. Mhm. ci xeex siburu. Euh, bi nga xamante ne moustiquaire tam dafa am place bu am importance. Euh, ci matuwaay yi. loolu noonu nekkoon fanweer. ci téeméer léegi dem na ba nekk ñett. Ah? xam nga loolu jéego bu léegi nag mu ne comme egsi naa fii hmm. damaa bëgg dolliwaat jéego hmm. dama bëgg dem fi ñuy wax pré élimination hmm. damaa bëgg par exemple fii ay at ci kanam. ñu éliminer ko mu ngoo kon ñu ngi toll ci pré élimination la préparé daal éliminer léegi nag loolu nag bi nga xamante ne kuréel euh, organisation mondiale de la santé. moom kuréel bi nga xamante ne moo nekk ci àddina bi du toppatoo affaire wér yaram ne d'accord na ci ak Sénégal parce que résultat yi ñu am. mën nañu ñun. xuus vers li ñuy wax la préélimination mhm. te loolu nag prévention daf ci am solo mhm. trop bu baax moustiquaire ñëw mhm. Sénégal ne comme bu dee loolu la man sama plan stratégique fii bi jëm 2015 damaa bëgg sénégalais bu nekk ah, tëdd ci moustiquaire waaw parce que dégg naa kër yi boo jëlee boo jëlee téeméeri lu mu néew néew néew juróom ñett fukk yi tëdd ci moustiquaire mm-hmm. wala boo jëlee fukki sénégalais mm-hmm. lu mu néew néew néew juróom-ñett yi tëdd ci tëdd ci moustiquaire programme bu am solo waaw loolu moo tax mm-hmm. ñu nag euh, lii moom mooy benn stratégie bu may def ci euh, fas euh, benn jéego jéego léegi nag bu loolu taxawee mu ne ah kon maa wax ñu tëdd ci moustiquaire hmm? léegi foog ma jox nit ñi moustiquaire kenn du ko jënd waaw kenn du ko jënd damay organiser ay campagne at mu nekk ma dem ci benn dëkk euh, benn région organiser campagne looloo tax dakaar ak Thiès mooy région yi nga xamante ne bi ñu commencé campagne ñoom ñu mujjee organiser hmm. parce que tamit Dakar ak yéen commencé ca biir waaw dañoo commencé ca biir commencé ay ay Kolda hmm. Kédougou Kédougou hmm. ay tam ay Tambacounda di si wàcc si ba mujjeel parce que tamit du ay duñu dëkk yu ndaw tey euh, li ñu distribué ci euh, moustiquaire mhm. Dakar ak Thiès mhm. daanaka mhm. moo ëpp wala mu tolloog li ñu distribué ci ci yeneen gox Sénégal yëpp parce que Dakar ak Thiès ni mu toll. kër kër yu nekk kër gu nekk juróomi moustiquaire ngeen def déedéet parce que du kër bu nekk mooy am juróomi moustiquaire parce que ni ñu waxee euh, stratégie centrée sur le couchage mooy tey lal yi la ñuy compter fi nit ñi di tëdd hmm. buñ duggee ci kër dañuy dañuy xayma hmm. parce que am na kër yu am moustiquaire hmm. ba pare am na ñooñu lal yooyu am moustiquaire duñ leen conte dañuy conte lay lal yi nga xam ne amul moustiquaire yooyu nag bu dee ñett la wala juróom wala ñaar wala benn wala fukk wala fukk ñu bindal Euh, borom kër gi kayit. Mhm. ne ko bis sàngam. Mhm. place sàngam. Mhm. na nga ñëw jël si sa ay. jox la su ma la déggee daal am na ay agent yoo xamante ne. waaw ñu ngi ci réew mi. waaw yoo xamante ne dañuy dem di xayma. waaw ñaata agent yooyu naka lañ leen di xàmme. waaw dañ leen di xam nga euh, docteur bi sànq wax na ko. nee na district am. parce que dañuy dem ci district bu nekk. dénk nag. Euh, affaire boobu. Mhm. dañ koy dénk teg ko ci loxo ah, district bu organisé. damay day ay boo xoolee du du demee noonu. Mhm. boo xoolee mhm. euh, diggante Dakar ak Thiès. lu tolloog fukki junni. fukki junni laax de. dix mille trois cent et quelques relais. relais ak superviseur communautaire. formé nañ leen. ah kon programme bi am na solo xam nga pour que ñoom ñooy dugg ci kër yi benn par benn. séddale nag ay gox par ay unité de recensement mhm. yoo xamante ne day am nombre de kër yu yem mhm. nga xam ne xale bi dina ko mën a dugg mhm. sa euh, sànc euh, ko saytu nombre de moustiquaires bi waa kër gi soxla wax ko information bu weesoo loolu bu ñu joxee moustiquaire da pare ñoom dañuy delluwaat ci kër yi xool ndax comprendre nañu li ñu leen wax naka lañ koy takkee naka lañ koy euh, utiliser naka lañ koy mais kan moo a nelaw ci suufu moustiquaire xam naa ne maag alaaji da soxlawuñu moustiquaire ñëpp ah boo alaaji soxla na ñëpp amul góor Sibiru est-ce que dafa am ñu muy ñu muy ñu muy ah man man dama defoon góor ñu soxla dama mustikeer wala góor ñi hmm. mag ñi hmm. ah xanaa yow doo tëdd ci mustikeer ci mustikeer laa tëdd parce que man damay bañ am si buru. parce que ñëpp ñoo war a nelaw ci parce que damaa tukki woon. Mhm. am si buru. dëgg la dootuma ko fàtte. dëgg la ñaanuma yàlla. moo ku ko ñam dootoo moo tax naa boo xam ne ku ma seet suul mere moo tax nag mhm. euh, ñëpp. Mhm. parce que bu jëkkoon ni euh, message yi dafa jaxasoo ñu naan xale yi ñooy tëdd jigéen ñi ñooy tëdd góor ñi ñooy tëdd jigéen ñëpp képp kuy noyyi. ah fii ci Sénégal. war nga mën a tëdd ci moustiquaire mhm. da ngaa war a tëdd ci moustiquaire kon Alaaji Alaaji mbaa yaa ngi tëdd ci moustiquaire bu loolu weesoo mhm. bu loolu weesoo mhm. waxuñu benn fan waxuñu noor waxuñu nawet noor ak nawet euh, docteur bi nekk fii sànq nee na moustiques yi sont toujours la les moustiques mhm. sont toujours là mhm. yooyu da nga koy gis nawet mhm. da koy gis noor donte xañ na nawet ci la ñuy gën a bari waaye ñun ñi nekk ci hôpital yi xam nañ ne si sibiru amul waxtu day am ay waxtu yoo xam ne day gën a bari mu nawet bi mais day nekk ci anne bi yëpp moo tax ñu ne moustiquaires yi dañoo wax famille bi famille bi yëpp toute la famille ah toutes les nuits toutes guddi bu nekk. jot ak toute l'année. Mhm. mooy année bi yëpp. maanaam daal timis daal ñu commencé takk. buñ ko mënee. waaw loolu daal moo gën. timis daal ñu takk. timis di waxtaan nañu taxaw gonal parce que tey am na benn reportage bu ñu def bu am solo. Mhm. ci benn village bu nekk fële booru xombol. Mhm. ñooñu bu ñuy ngonal. mooy tàngaay bi jàppale ñu nekk si biti. waaw waaw génne matelas yi dañuy génne matelas yi. ak ak basan yi takk ci seen ay musinga waaye loolu dafa am jàmm sax parce que bu fekk da ngaa nekk ci biti ngonal ba une heure du matin mhm. takkoo moustiquaire mhm. mais yooyu màtt nañ jeex nga dem nga ni pourtant damay tëdd ci moustiquaire feebar bi dugg la ci moustiquaire te am naa si buru dëgg la allah ji looy dugal foofu parce que defe naa ne yéen communicateur traditionnel am nañ ci njariñ ñii am nañ ci lu bëri waaw xam nga ministre yu jëkk euh, de la femme mhm. yooyu si buru wàññi ko woon na dan daan def campagne ñun ànd ak Asman waaye boobaak léegi nag ci daanaka euh, géej na mm-hmm. géej na noo dem dama daan dem ci xew yi mm-hmm. mu demee ci xew yi di wax musikeer mm-hmm. lan la war a jëriñ doomaadam aadama di dem ci làmb yi di dem ci mili yi di gox yi defatuñ ko benn la woon ci programme waaw ndax kenn wootuñu loolu mu toog waaye booba wàññi na te jottali am ngeen ci xam-xam nag jottali soo na diggéen mooy war ñëpp xam dëgg la waaye ministre de la femme ba yemee rek ci la femme. Mm. yem ci ministère am. Mm. dina am ñoo xam ne ñi bu ñu amoon muskeel duñu xam nañ koy doxalee. Mm-hmm, mm-hmm. kon damaa bëgg ñu delluwaat ci communicateurs yi. Mm-hmm. di wër ci ñu dem. yéen fa euh, porte waaw ndax si biir jëmbul kenn. dëgg la maa ngi ñëpp ci yem. dëgg la euh, amoon nañ ci xam-xam yoo xam ni. moom jigéen ju wéru la yem. ci kër docteur. dëgg bu gisee yëgee dara ci yaramam. na mu war a deme na mu war a demee ñàkk boppam na mu war a toppatoo boppam ñun ñëpp ak nàmp dañ ko daan def waaye nun boobaag léegi kenn waxuñu dara eh, moustiquaire yi nag nun ku ci am yaa jëlee si waaye kenn joxuñu dara kenn ku ne xam ne ne kër Massar ak Boune ak Yëmbal ak Murina Gunaas ak Jàmm Gën ak Fass Mbaw su réewu ñu yegg si ci yow ah, ñu ñëpp la ñuy ñëw ñii ñëpp ma leen jox. alaaji ma indil ma sama lañ jox. ñëpp ah, ah, jox moustiquaire yi moom tey boo xaymaa diggante Dakar ak Thiès li ñu fa distribué ci moustiquaire mhm. tuuti la manqué 3 millions de moustiquaires. waaw 2 millions 800 mille et quelques moustiquaires lañ distribué diggante Dakar ak mhm, Thiès. te kenn du fay gratuitement ah, te kenn fay dara gratuitement mm. Mm. xam nga mm. léegi nag léeg dakaar Dakar lii lii lii jafe-jafe bi mooy tëju kër yi dañuy tëju kër yi dañuy wax euh, man damay wax sama kër su ma génne jànq bi ah mm-hmm. koo xamul bul ko ubbi ah loolu la xam nga parce que ñu ñu dëkkoo mooy li ma doon wax bu mais mais mais mais tey jii mm-hmm. euh, euh, avant avant ñuy def campagne yi bi ñu xaymaa yi def recensement yi 4 mm-hmm. pour cent de couverture la ñu am c'est-à-dire fukki lal yoo euh, téeméeri lal yoo gis. Mhm. ñeent ñeent mhm. ñeenti moustiquaire moo fa am mhm. téeméeri lal yoo gis ñeenti moustiquaire moo fa am waaye bi ñu distribué ba pare dañ ko xaymawaat téeméer boo gis juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñett yi. ah loolu moom am na solo am na solo léegi nag. Hmm. am na ñaar euh, li ñuy wax 2 pour cent. Hmm. xam nga juróom-ñeent fukk ak euh, juróom-ñett. Hmm. ñaar moo ko manqué mu mat. cent pour cent. xañ na ñaar yooyu nag. mooy waral. mooy alaaji waaw ñi nga xamante ne léeg-léeg dañuy tëj kër yi. wala léeg-léeg aussi parfois xam nga tamit ñaari junni nit. nga wax leen wër leen diggante Dakar ak Thiès. dugg ci kër yi xam nga mënoo leen topp. te xam naa ni am na peut-être ñoo xamante ni. waaye programme dina leen jàpp waaye programme bi daal mi ngi wëy. waaw léegi nag bu weesoo loolu gis nga ñaar yooyu. Mm-hmm. ñaar yooyu des te am na mm-hmm. tamit dakaar ñoo xamante ne nii ak euh, surtout Dakar. Mm-hmm. dañoo jot seen ticket ba pare. te ñooñu jël si seen ay moustiquaires. suñ ko jëlee suñ ko jotee fu fuñ koy jëlee. dañ leen di wax place bi ñu koy jël bi en général du sori léeg-léeg ci jàkka yi la. ci école yi dañu chef kër chef de quartier bi. parce que activité communautaire la. la. askan bi ñoo koy ah, organiser loolu am na solo nga tey docteur yi dañuy dañuy cadre encadré rek mm-hmm. mais askan bi ñoo koy organiser mais def ngeen ko daal mu gën a jàppale ba ñuy communicateur traditionnel yëpp mm-hmm. journaliste yëpp mm-hmm. dañ leen defal benn session de formation ci gox ya ñuy liggéeyi pour ñoom tamit ñu jàpp ci communication bi tey actuellement sama équipe Mm-hmm. sunu équipe mm-hmm. mu nga Kolda mm-hmm. parce que Kolda la ñu war a defar euh, ci weer bi ñu nekk euh, jàpp décembre démb lañ doon formé journaliste Kolda yaag communicateur traditionnel yaag ñi nga xamante ne vraiment ay porteurs de message de voix lañu de voix am na mais li hmm. ngeen def am na solo. parce que ñëw fu mel ni wareef. Hmm. wax àddina bi dégg leen. Hmm. lu am solo la. bëggoon naa balaa ngeen di euh, dem tamit. Euh, Intra-Ils mu ngi def liggéey bu am solo. yéen ndax xayma ngeen. la nga xam ne moom la sibiru daan faat wala daan tëddal. ba programme bi doo. ak léegi parce que médecin bi mi ngi naan moom gisatul sax ku tëdd. nee na dafa ay la sax yoo xam ne kenn tëdd ku ci. ci seen xayma fan la toll. waaw Euh, xayma bi euh, duñ ko mën a xam dont at mi jeexul parce que mm. programme national de lutte contre le paludisme mm-hmm. at bu nekk day def rapport mm-hmm. globalam mm-hmm. xayma mais xayma bu ñu mujjee am ci 2009 la woon booba fekk na commencé nañu dugal moustiquaire yi dëgg la euh, soo gisee mooy li ma la wax rek téeméer boo gis fanweer moo daan am si buru léegi téeméer boo gis daanaka ñeent ñoo ci am si buru faj mais aussi mhm. parce que tey même bu ñu defee prévention tamit mhm. du ñàkk dina am ay benn wala ñaar yi am sibbiru dañ leen war a toppatoo ba duñ ci loru euh, sibbiru bi du leen faat mhm. ñooñu noonu euh, programme bi def na ci jéego parce que bu ñu amoon par exemple fanweer euh, téeméer boo gis presque fukk yeeg juróom-ñeent yi dañuy gaañu ndax sibbiru léegi Euh, programme paludisme dugal na matuwaay yeeg paj beeg diagnostic beeg traitement bi ba nga xamante ne loolu mhm. noonu daan faatu wàññeeku na bu baax baax ba nekk autour de trois pour cent quatre pour cent mhm, mhm, loolu am na solo trop loolu am na solo loolu am na solo alaaji lan ngay laaj balaa balaa balaa balaa programme non li ma koy laaj mooy rek ñu delluwaat ginnaaw di fàttali rek ne premier euro wareef bi waa intra waaw dama ne ñu am ci mbégte lool lool lool lool ministre de la femme ah. moom am na nañu delluwaat ginnaaw lu ñuy def ñu dugal ci communicateur. bu mm-hmm. jëkk ni mu daan yéene. Mm-hmm. waaye gii ko daan yor. Mm-hmm. fi ñu dem docteur du fa dem. ministre de la femme du fa dem. ku ñu nag buñ fekk si. Sénégal nag noo ko bokk. waaye réunion ñu nag communicateurs yi ñu wax ci Tamba Kolda. ñun ñu mën soo fa teg moo dem fal. te liggéey ba ci war ba relation am dëgg mu woote réunion communicateur yi yëpp nan daan def dëgg la xew woo dem daje fa ak lu mat cent personnes deux cent personnes ñu leen dañoo bëggoon ngeen delluwaat ginnaaw sàmm xale yu ndaw yi sàmm mag ñi góor ñi jigéen ñi di jël moustiquaire di ko employé bu ngeen tëddee def na tax si bur du ngeen yomb mhm, mhm. ndax loolu laan def dëgg la loolu kenn yootuñu defatuñ ko dëgg la dañ ngeen si boole te lii nii lii nii li nga wax am na solo ndax euh, gis nga li ngeen ci jot a xam baax na <laughs> parce que ci ay programme la te ñii tamit ñu ngi ci ay programme bu am solo mhm. defe naa ne ministère de la santé mi ngi taxaw ay jéego yu am solo intra ils mi ngi taxaw tamit ci ay jéego yu am solo mais euh, li nga xamante ne tamit bëgg naa la ko laaj da ma wax sànq ne ci fóot bi fóot bi nga xamante ne nekk du dindi tooke bi mhm. dana ne ndox la ñuy jël mhm. jël li nga xamante ne mooy saabu ordinaire mhm. fóotee ko ko bul fete loolu nga wax bu euh, yem rek gupp guppa guppal daal gupp ni weeri tamit foo xamante ne nekk amul naaj loolu su fekkente ne tëral nga ko ni nga ko war defee ñeenti at euh, affaire bi dina la mën a aar yow ak sa njaboot waaw te mën nga ko cee fóot euh, ñaar fukki yoon ñaar fukki yoon ñeenti at loolu mun na ñëpp war a xam ne noonu lañ koy entretenir ki nga xamante ne ne moom bëgg naa weexal mhm. dem te déggul woon lii mhm. dem ba nga xamante ne ne euh, kii kiiwam pot javel na ko def ci yu kenn xamul mhm. ndax dafa am fu mu leen di fekkaat pour utaat euh, kii yi wala waaw dëgg la da ngay introduire sama euh, suite li ma doon wax voilà ku sa musique dem ba nga xamante ne yàqu na mooy musique bi kenn ko utiliser voilà nooy def ginnaaw campagne bi bu mu jàllee ba pare parce que campagne dañ koy def ñetti at yu nekk dëgg la aujourd'hui xañ na bu ñu defee campagne Dakar en 2013. incha allah ay 2016 yooyu la ñu ñëwaat defaat campagne Dakar parce que boo saytloo sànq dama la wax ne moustiquaire mën na durer ñeenti at. Mhm. xam nga mhm. mais comme dañoo xam ne suñu contexte yi léeg-léeg euh, mën nga juum nga utiliser ni nga koy entretenir parfois mën na bañ a leer. Mhm, léegi dañu wàññi. au lieu ñu def ñeenti at. dañu def ñetti at. xam nga pour teel a euh, renouveler moustiquaire. xam nga bala muy yàqu completement xam nga léegi euh, su sa moustiquaire yàqoo. entre les deux campagnes. waaw am na fu nga xamante ne nii dañ ko fa teg. Mhm. à des prix subventionnés. Mhm. Hmm? foofu baax naa hmm? xam. prix subventionné mooy prix yoo xamante ne nii tey. Hmm. mun naa wax ne daanaka téeméer lay jar. Mhm. téeméer kenn amul droit yokk. téeméer lay jar. téeméer. Euh, si structure publique yi. mooy dispensaires yi. poste de santé yi. xam nga. boo fa demee. Mhm. mun nañ la jox su moustiquaire à mhm. francs. soo demee ba sa bos yàqu. ba sa bos yàqu wala nga am lal bu bees. waaw wala wala nga am njaboot gi xaw a yokku. tuuti waaw waaw macha allah mhm. ngeen njëkk mi daal ba yombal ko. ba parce que tey jii. boo ko doon xayma prix de revient bi. ay 4000 la wala 5000 francs moustiquaire. su dul woon li ngeen ci jàpp. junni lay jar daanaka waaye daal programme bi jàpp ngeen ci. ba nga xamante fu mu ne nii téeméer la. loolu baax a fës. Euh, jigéen ñi ñi nga xam ne jigéen ñu wërul yi aussi mm-hmm. bu ñu demee ci consultation prénatale yi mm-hmm. dañ leen koy jox gratuitement mm-hmm. parce que xam nga sibbiru baaxul ci jigéen wërul kooku duma rentrer dans le détail ñëpp xam nañ ko euh, ñooñu bu ñu demee ci consultation prénatale bi rek dañ leen koy jox sax ndax am na jigéen yu wérul yi waaw euh, na leen lor dëgg la ñoom ci seen bopp mais mën na lor aussi li ñu ëmb xam nga moo tax ñoom fànn bu am important dañ leen di topp de très près. Mhm. parce que ñoom bu weesoo sax moustiquaire yi tëdd. Mhm. boo seetoo dañ leen di jox ay garab. Mhm. garab par intermittence. Ah, loolu mooy traitement préventif euh, intermittent euh, ñetti weer yu nekk daanaka à peu près ñu jox leen garab boo xamante ne day raxas sibbiru bi bu nekkee seen doomu jaamu jàngoro sibbiru bu nekkee seen yaram mu génn pour que mu bañ leen lor au-delà de ça aussi dañ leen wax ñu tëdd ci moustiquaire mhm. mais comme bëgguñu leen wax ñu jënd mhm. ñoom bu ñu ñëwee dañ leen koy jox gratuitement mhm. bu ñuy def seen consultation prénatale bu weesoo foofu tamit def nañu lu ñu wax marketing social ñi nga xamante ne mënuñu jotalee ci structure de santé parce que dañuy bañ rang bi wala dafa sori. Mm. léegi dañuy ubbi ay points yoo xamante ne mënuñ fa am moustiquaire subventionné. Mm. xam nga. Mm. ba tey ci euh, téeméer. Euh, marketing social def naa 1500 la. 1500 la mooy. Euh, ci station essence yi. Mhm. boutique yi fay faral di nekk. Mm. ak yenn pharmacie yi. Mhm. xam nga mhm. dana dana waaye district sanitaire yi daal ko fa sanitaire yi moom. ku fa dem teg téeméer te te su fekkoonte ne jàpp ñu ci woon ci junni lay diggee waaye daal jàpp gi ngeen ci jàpp. jàpp moo tax mu yëpp tënk. docteur Ndella Diakhaté di fàttali ne yaay chargé programme fonds mondial à intra ils. fii ci Sénégal am nañu mbégte lool lool lool ci li nga ñëw ci wareef. Mm. parce que fii mooy seetu askan wi télévision Média. muy fësal jéego yi nga xamante ne ne que état Sénégal mu ngi koy def ci wàllu santé yi paludisme bi ndax lëmbee na réew mi mm. kon lan ngay tàggoo. waaw damay def rek di la gërëm. Euh, di leen jaajëfal. jërëjëf euh, ba ngeen ma joxee occasion ma ñëw waxal sama équipe. ndeysaan parce que équipe lañu. dëgg la tey man naa fi teew. dëgg la parce que ñeneen ñi ñu ngi ci beneen région bi di liggéey di dóor waar bi. dëgg la euh, di leen sant parce que ñoom tamit ñu jàpp ci liggéey bi lañu. rek xanaa rek gën a ñaax euh, population sénégalaise. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. xam ne sibiru réalité la. dëgg la euh, du ay mango bu verte moo koy joxe. du leneen. yoo yii ñoo koy joxe. amul noor amul nawet. waaw amul noor amul nawet. xam nga dañ leen di ñaax rek. pour que ñu gën di utiliser sànke yi nga xamante ne dañ leen ko jox. parce que loolu mooy suñu défi. dëgg la parce que tey sànke yi pour mu ñëw Sénégal xaalis bu bari la. dañu waxante dëgg xaalis bu baree baree bare alal ju takku la waaw mm-hmm. ah, parce que sànq yi rek xooloon rek lu toll nañ ñetti ñetti million wu sànq mm-hmm. nga distribué ko ci Dakar ak Thiès bu rëy la lu rëy la logistique bi rëy na xaalis bi rëy na liggéey bi nit ñi sonn nañu xam nga li ñu des te rek aar bëgg leen a wax ne amuñu ñu waaw léegi dañ leen di ñaax rek mm-hmm. bi loolu weesoo rek ñu tëdd ci musikeer aar seen bopp ci si buru parce si buru bu la dalee euh, di nga génn xaalis mhm. di nga ut oto dem hôpital mhm. di nga fa fay as tuut nga mhm. jënd garab boo dee liggéeykat nga di nga toog ñetti fan ñeenti fan bu dee sa doom la du dem école ñetti fan te loolu yëpp dafay aar sa dafay impact ci économie dëkk. jërëjëf loolu moo tax ñu andi moustiquaire yi te di leen ñaax pour ñu koy jëfandikoo. jërëjëf jërëjëf docteur Ndella Diakhaté li ñuy def rek mooy di remercier waa Intra Ils bi ñu choisir télévision Futur Média choisir li nga xamante ne moo di wareef li ñuy def mooy dem dellu si léegi ak suñu caat Zeyna dellu si ci thème bi ci kàttanu yàlla ba tey rek ci télévision Futur Média seetu askan